assalamualaikum ñi ngi leen di nuyu di leen ziar yeen ñi eh, suivre ñep ci seen chaîne sama xalaat ci seen programme eh, bi nga xamanteni moy fagor mu ëmbalé li nga xamni moy plante de la semaine ak fruit wala légume eh, de la semaine vidéo tay bi nak day ñëw ci fruit semaine fruit semaine nak nag ñu ngi tànnoon li nga xam ne mooy comme ni ngeen ko xamé plante semaine bi ñi ngi waxtaanee moy vidéo bi passé ñi ngi garabu banana manam lim mën ci walum fajj Euh, bii nag dañuy waxtaane maanaam fruit banaanam ci boppam yan njariñ la am ci doomu aadama bi nga xam ne daf koy daf koy consommer professeur ñu ngi lay ziar Pape yàlla yàlla nangu ziar lay delloo ziar yow it di nuyu sunu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre yëpp ci sama xalaat TV mhm. euh, di leen jaajëfal rek ci seetaan bi parce que tamit euh, xam naa ne dañuy waxtaane rek ci bëgg Sénégal defaru mhm. ñuy waxtaane rek ci sunu kéemtalaay xam kàttan ci liñ xam rek. dëgg la bu defee xam naa ne liñ xam tamit mënuñoo wax lépp. Mhm. waaye lañ ca lañu ci yàlla mën a jotale rek ñu jotale leen ko. waaw incha allah luñ ci joxe rek ñaan yàlla mu barkeel. amiin amiin yaa rabbi. Euh, banaana nag comme ni ñu ko waxee woon sànq ci plante bi. Mhm. boo ñëwaatee ci fruit bi mhm. moom la nit ñi gën a xam. ndax fruit bi nekk na fruit bu neex nag macha allah. waaw daa saf suukar. waxoon na ne moom dafa riche ci ay vitamines yu am. B1 B2 calcium potassium. Mhm. yooyu yëpp magnésium. Mhm. mais nag mu amaale ñetti sucre yu ci am sucrose ak mhm. fructose ak glucose. Euh, sucre yooyu nag dina tax ba nga xamante ne ñi am jabet dañ leen koy xaw a moytuloo ba daana bu bari. d'accord moo tax euh, en général. Euh, day baax tey boo amee sa malade bu nekk hôpital. te jabet daaneel ko. soo koy yóbbul xam nga Sénégal moom dañ lay yóbbul fruit. su ma bàyyi. banaana bi moo gën. Mhm. war nga def ko pomme wala leneen. Mhm. parce que sucre boobu ñu la wax sànq moo ci tax. Mhm. bu ko defee nag muy plante muy fruit boo xamante ni dafa bëri njariñ. boo xoolee pap euh, sur le côté nutritionnel. parce que vitamines yooyu ñu la wax. tey boo amoon sa benn meew. nga jël benn banaana wala ñaar daggate ko ci biir. Euh, jaxase ko di ko jox sa xale baax na si moom. banaana ak meew. banaana ak meew. wala boog boo amul meew nga jël jus de buy bu ñu fi waxtaanee woon. waaw waaw nga am jus de buy nga wut sa banaana. Mhm. fajarate ko wala nga def ko genre purée. waaw laa day mel ni purée kon. kay gis nga. te day neex te c'est nutritionnel. Mhm, donc te bu loolu bu la neexee. sax baax na si xam baax na si mag sax dana ko def neex. <laughs> te góor Uh-huh. chaque jour muy jëndal xale bi benn bonbon di koy del jël mu am un fàtte ko xale bi di jooy. Uh-huh. beneen jour mu mujj naan ñam ci naa ah, xale bi koy lii <laughs> wax na dëgg non c'est vrai neex nag te te tey mënoon nañ ko def sax boisson di ko jaay tey bu la neexoon nga wut say meew nii au lieu nga defar say meew noonu rek. da nga mm-hmm. meew butéel bu ci ne nga def ci benn banana wala daggatu banana. Mm-hmm. donc loolu mën nga ko commercialiser di ko jaay déjà. waaw ah, bien sûr bien sûr uh-huh. donc. mu nekk comme li nga xamante ni waxoon nañ ko ci xob yi. muy mhm. fruit bi tamit baax na ci ñi nga xamante ni dañuy amee euh, dépression. Mhm. dépression di ko di ko jël di ko lekk baax na. Mhm. Euh, fruit la boo xamante ni tamit waxoon nañ ne dafa am cancer ak yu deme noonu am fer ak demee noonu. mais baax na ci anti cancer. surtout cancer de sein. ak euh, colorectal donc cancer la yoo xamante ni. ci wàllu cancer daal mën na ko prévenir. di ko mm. jël lu lu bari. kon di ko lekk lu bari dina la dina tax dina la éviter nga am cancer. waaw mën na la waaw banaa la quoi. Euh, mën na la mën la éviter tamit wala ki amee ulcère. Mm-hmm. mooy estomac. Mm-hmm. tamit di ko jël baax na ci. parce que dafa xaw a kii dafa xaw a. pat xaw a patee waaw waaw. liñ ci fi ñu ciy waat kenn rek mooy ki nga xamante ni tamit dafa amee hémorroïde. Mm-hmm. moom dañ koy moytu loo moom. maanaam ki amee hémorroïde daal. da koy moytu. Mhm. ki amee diabète aussi mën na koy moytu. Mhm, waaw ñooñu moom mën nañu moytu banaana. ñooñu jarul ñuy xaabaabal ci banaana mhm. mais bu ñu ko lekkee du leen wàññi dara xanaa ñu ko bañ lekk lu bari waaw parce que pat bi muy gën a tax moom. Ah, bu dee bee sucre bi du la garaawal noonu mais mën nga ci lekk lu yam rek. Ah, ci pour constipation ak yu demee noonu. waaw kay pat ah, donc bu ko defee noonu lay demee bu ko defee nag euh, fruit fruit bi tamit di ko lekk lu bari baax na parce que moom li mu mën a li mu mën a fa daal baax na ay problème mu biir ak yooyu demee yëpp. da koy ci dégg est-ce que loolu c'est avéré. lan lekk ku bëri looy lekk banaana doo ga doo naax. donc waaw. Hmm? waaw dama ko dégg de. dégg naa ay parce que parce que dafa baax ci système nerveux. Hmm, dafa baax ci système nerveux. Hmm. parce que da lay sara xam nga tamit foofu sax fàttali nga ma Pape. parce que dafa baax ci concentration tamit. ku kuy concentré wu xam nga kay. ñi def yoga. waaw kuy ko bëgg a concentré wu te xam nga li tax ma la sa avéré parce que comme que baax na ci dépression. gis nga. waaw waaw waaw baax na ci xel muy tamit ci xel muy neex. xel bu neex. loolu ma koy yàgg dégg daal ñoo ko bari looy lekk banaana. waaw doo sa xel day neex sax. voilà man parfois sax yenn saa yi su may gëstu beeg si dama daan ñiy defar kiis. mën nañ koy. utiliser utiliser maanaam ñu bëgg seen doom di am xel. waaw mën koy mën nañ koy. mais ñu si bëri daa mel ne lem la ñuy gën waaw waaw lem tam dañ koo wax lu mel lem tamit baax na lem moom. c'est vrai soigne tout la presque. Mhm. léegi bu ko defee yooyu baax na ci concentration. baax na tamit ci wàllu xel bi ñu la waxoon. Mhm. dépression euh, ak problème bu biir yi mooy ulcère gastromage yu demee noonu tamit baax na ci. fruit bi fruit banana mooy fruit banana bi. donc mais jabet moom du ko joxe de mbaa. non du ko joxe. waaw ah, du ko joxe du ko joxe waaw ki ko am ba pare am mën na ko bi ñuy sànni. bi ñuy sànni waa kay bi nga xam ne boo ko lekkee nii ba pare. Mhm. boobu tamit xam nga dafa riche en potassium. Mhm. boobu tey damay wax ni sama bii lii ma wax nag sama benn jaay moo ma ko joxoon secret bi te bi ñu ko defee aussi c'est avéré. Mhm. te wax naa ko ñu bari tamit. gis nga kii miir. Oh. miir te xamul miir mi miirul lu mu doon exemple. xam mhm. fu mu toll day miir rek. malaise waaw. dem na hôpital mhm. dem fa sonn daal jaxase ba daal may miir bi daal sonal na ko. Mhm. day wut kilo banaana. su kilo banaana. ko mënee lekk. baax na su ko mënta lekk mu joxe ñu lekkal ko ko mais moom xott yi la soxla. Hmm, day am waaw ah d'accord. Hmm. maanaam bu la bu ko neexee bu mënee lekk baax na su ko lekk daal. na la jox yow nga lekk loolu moom yomb naa réglé kuñ dikk kilo banaan seetloo ko ci kër moom waaw yaa balaa cinq minutes nga am ay xollit waaw xollit yi nag ngay soxlawaat nga wax la ñu jox la xollit yi mm-hmm. léegi yooyu nag ngay baxal mm-hmm. léegi ndox moom nga di ko naan xollitu banaana xollitu banaana yooyu lu toll kilo boobu moom ngay baxal di ko naan mm-hmm. kooku boo koy def miir ak miir lu mu mënti doon di nga tàggoog moom d'accord baxal bi tam togg la wala infusion baxal baxal foofu baxal togg waaw baxal togg waaw man na bañ a ñor yenn ñor yi nag ah, donc kii ku ku amee miir daal di ko def. miir miir waaw. Ah, kon solution baa ngi noonu ñi nga xam ne dañuy miir. miir am malaise. souvent waaw ah, miir. donc daal moom lu wér la lu avéré la. Mhm. beneen bi ci xott yi tamit eh, gis naa ni boo ko lakkee. Mhm. boo ko lakkee ba mu def dóom. Mhm. poudre ñi nga xam ne dañoo bëgg ay karaw yu kii. maye karawa yooyu maye karawa ñu ko mm-hmm. jaxaseeg seen karité ak yu demee noonu wala ñu def ko seen diwu bopp diwu bopp doomu xoolitu banaan waaw nga jaxase ko ci diwu bopp bi ngay utiliser bi ngay di ko def ci sa karaw moom it waaw dalay may dalay may day sëqal karaw day sëqal karaw bu la neexee tamit diw boobu kii xott boobu tamit bu la neexee soit da suul sa tool mm-hmm. maanaam day xam naa du yomb daal li ah, ma bëgg wax mooy engrais la. waaw waaw waaw. waaw soit xott bi non engrais la. engrais bio la engrais bio la. soit nga nga def ko di compost. soit nga lak ko jël jël dom bobu ya xam dal noo fe mais dal mom moom ki la waaw. compost bobu sax la moy engrais engrais ma ngi bio sax engrais naturel. la naturel sa que ñun ñi bio lañuy ñuy day xar gi mo bu ñu génneel yow la bio bio. Ya. mais naturel gi. naturel gi wa kay petit disant donc bu ko defee gis nga. pap amna ci ñu dem tamit ba ni même banana la boo koy lekk doo ci walu sey donc mhm. xam nga euh, yooyu yëpp c'est pas avéré na. ah loolu de mën na war naa mën na nekk mën na mën a ñaare banaana ko yoree rek am na. waaw kay koy bëgg a symboliser bi xam nga am na ci am na ci ñoo xam ne. am na ñoo xam ni. waaw mais mais mais nekkuloo confirmé quoi. dañ koy wax confirmé woo waaw d'accord parce que dafa am thèse bu gars yi développé que ni bépp fruit boo jël rek wala mhm. légume. Mhm. ni mel. organe bu mel noonu la dina ko dafay faj. ah day man njariñ organe bu mu niróol. waaw bu mu niróol. ok ah, comprendre moo tax ñu bëri na ci mel noonu lañ lañuy basé wu. léegi boo jëlee banaana comme li nga wax day niroog sacré góor. Oh, donc gis nga. Ah, loolu moom xam nga du scientifique quoi. waaw waaw waaw ah. <laughs> pourtant nag am na am na ñu ciy développé ay kii ay. tubaab yi commencé développé xam nga. ah waaw gëstu ko rek bu su uh-huh. après ñu ngi ñu ko. effectivement waaw. topp ko topp ko. effectivement liggéey sa waaw domaine la nga topp parce que tamit même boo demee ci ci rabu àll yi. am na hmm. ñoo xamante ne tamit daan la rabu àll nangam. Hmm.

waaw aller retour ñëwaat taxaw nga da ngay ñàkk tooy xep pourtant li nga wax nii yaa ngi ma fàttalikal ñun ñi daan nañu ko def gis nga ñun sax daawuñu dawloo mais dañ hmm. dañ la koy jox nga naan ba pare wut ay yari daqaar caw caw la dóor la ba ngay ndax nga def nga daw boobu force waaw mais loolu mais loolu après soit nga wàcc wala yu demee noonu c'est-à-dire li nekkoon ci yow yëpp la fa génne te pourtant day faj day faj lu bari waaw waaw mën a faj lu bari am nit bu ko amee fu mu ne nii soo dañ koy waaw kay astafurla euh, saw gaynde saw maanaam sow waaw ñoo xam ne sow ak saw waaw mais tubaab yi saw gaynde lañ koy wax mu wut ko waaw mais ci saw gaynde bi moom justement asma laa dégg waaw saw saw gaynde moom day fekk asma moom moom surtout crise d'asthme mais tamit dafa weex il faut que nit ki xam ni mu koy naane c'est ça sinon mën a dagg xolam te loolu moom c'est avéré aussi c'est avéré c'est avéré moom comme saw xar bi dañ ko doon joxee bu njëkk waaw saw gaynde moom day faj day faj asma surtout crise d'asthme mais da koy faj moom it mais dafa weex tuuti ko ci jël moom c'est acide ok bés si acide. yooyu nag ay garab yu xaw a kii la. xaw a garab yu naqaree jël la. naqaree jël naqaree ji waaw. mais nag kii feebar moom des fois tamit du faa yooyu de. parce que am na kenn ku ma déggoon muy nettali benn waaye dafa feebar feebar boo xam dafay doon yuqeel. yuqeel quoi yuqeel. mais yuqeel mënut a arrêté. xam nga lan lañ ko digal. dañ kaa digal il faut nga dem ut waaye nag loolu sax xëy na am nañu ko daan lekk ay jamono. kaña lañ ko digal ne ko da ngay jàpp kaña nga rey ko nga supp ko. nga lekk ko ba jeex boo ko defee yuqeel bi dañ mu def ko yuqeel bi dañ ci saa Pape damay bañ a guddee vidéo yi wala ma yàq. waaw xam naa mais gis nga. ban ñu eggal kaña non non gis nga yooyu yooyu noonu. yu ci bëri day faj. kaña tey ku koy lekk du am du am AVC. ku koy lekk du am cancer. ah am nay picc yoo xamante waaw picc am na picc yoo xamante ni ku koy lekk du am dañ koy rëbb ci àll cancer kaña am na ko ni moom am naa kaña Dakar yi taxul ñuy wax de peut waaw man gis naa dëkk yoo xam ne dañuy lekk kaña sax am Sénégal gi am na dëkk yoo xam ne dañuy lekk kaña de waaw waaw waaw dëkk Afrique yi am na. non Sénégal la ah, Sénégal waaw gis naa ñu lekk ay yu nekk fii dañuy ah. Ah, waaw mais kaña yooyu euh, <laughs> la ñuy lekk ak yooyu. waaw waaw ci àll bi waaw ci àll bi waaw xam ne kaña rek ñoom. <laughs> <laughs> mais xam nga. pap pap pap santé. santé mooy yaatu. c'est-à-dire que xam nga tey dañoo wax la médecine par les plantes. ñun ci la ñuy waxtaan hmm. mais la médecine par les aussi dafa am wala la médecine par les animaux. Hmm. tey am na yoo xamante ni tey ci ci ci ci kii nga koy fajee. waaw ay ay mala. ci ay mala nga ko mën a fajee. foog yooyu ñu xam ko tamit. Ah, parce que ñun boobu la ñun ci plante yi la ñuy wax. waaw kay ñu xam ne tamit. rab yi rabu dañuy faj wala bàyyi ma yi. dañuy faj dañuy faj dañuy faj. dañuy faj plante yi ni ñuy fajee noonu la rab yi fajee suuf si noonu lay fajee. waaw am na suuf yoo xam ne day faj ay argile ak suuf yi. waaw waaw mag am na yenn feebar yoo xam dañuy bàyyi ba une heure ñu gas la ba nga tii ñu tàng la. waaw mën nga faj ki tamit saa jox ko garab saa jox ko dara dara dara loolu am na. beneen la nouvelle science de guérir. Mhm. loolu gëstu te doo ko jox benn ko faj. maanaam maam loolu c'est psychologique quoi. non c'est psychologique sax mais am na ay genre lal yoo xamante ne genre masse kii maanaam Mhm. tey ni ma la ko mën a expliquer. Mhm. am na yeneen laal yoo xam da nga ci tëdd rek. ñu mhm. jël benn ay xob wala ay garab. baxal ko comme genre médecine chinoise yooyu xeet la. waaw maanaam xawoon tuuti quoi. waaw la bëgg expliquer daal doo naan garab gi. dañ koy baxal. ndox mi di la. ah dañoo koy sóor. suur. Ah, d'accord te feebar yëpp. ay puso laa gis dañuy jam nit ki. non non bi waxuma jam maanaam da tëdd ci benn laal nii rek. acupuncture xaw ma. waaw waaw acupuncture. mais bi bokkul mais bi da ngay jël benn laal rek nga tëdd. tey ñu jël xasu banaana bi ñuy waxtaanee wala li nga mag yooyu mm-hmm. euh, baxal ko ci suuf mm-hmm. muy gilli di la gilli ñu jël ñu muur la morsa bi ah, nga xam ne léegi caxaar bi du dem ci yow lay ah, nekk mu dugg la ah. mais nag loolu di inconvénient bi mooy du inconvénient sax da nga koy def chaque jour Mm. Ah, thérapie la mais feebar cancer ak yooyu yëpp dafay dafay dafay. am na système bu ñu koy noonu. ñu ngi ci sax c'est que daanaka pare na sax mais xam nga yooyu tamit dafa neex da fajee quoi nit ki chaque jour. waaw waaw waaw waaw surtout maa ngay faj nit mu war a ñëw si meeku tëdd. waaw non yooyu yëpp garaaw. voilà ci garaaw rek ñu bëri sawartuñ ci yooyu de parce que kaaw Sonko bi moo tax non non non voilà moo tax ay ma yoo xam ji jëm ci àllum nit ñëw ngay simiti def moom. am na yoo xam ne <laughs> léegi sawaratu non non yooyu non <laughs> yooyu yooyu bokkul parce que tey bu fekkoon da nga ko organisé ba salle bi cinq personnes moo fa nekk wala six. ku nekk ak sa lal ak say. ah mu nekk genre clinique. genre clinique pour loolu la waaw waaw. mais inconvénient bi ma ci gis kese kese mooy. Mm. c'est la nouvelle science de guérir yàgg naa trois ans ni maa ngi ci gëstu. Mm. mais problème bi ci inconvénient bi mooy tey yow chaque jour nga bëgg a ñëw sama clinique di faj peut-être loolu rek. chaque jour nga déplacé wu loolaa ciy xalaat bi bâtiment boo xam ne clinique boo xam loolu ah, mais dañu a fay mais loolu ko mënoon moom mën naa ko développer dès aujourd'hui parce que mën yi ko xam nañ ni ñuy ko yëpp léegi li des mooy loolu loolu rek laa ci doon wax la ay inconvénient mhm. te daan benn garab doo naan ah. benn garab muy cancer muy jabet muy asma muy doo naan. waaw ah, loolu moom na solo. suul ah, rek amiin amiin ba Pape la xam-xam yaa ngi fi de. Mm-hmm. mais mais ñun ñoo xeeb la ñu ne c'est-à-dire dafa am yoo xamante mm-hmm. il faut que. te dañoo concentré moom nag ci médecine. dañoo concentré ci xaalis médecine occidentale waaw ak ci xaalis. voilà bu dee ci faj c'est-à-dire gëstuwuñu man sama clinique damay faral di wax ni yenn saa sax nit damay wax sax lu ma bëgg sax mu ñëw parce que man ma focaliser wu ci gëstu bi de trop même samay frère dañu ko wax ne bàyyil gëstu bi mais. waaw te li nga jot a gëstu nga koy. nga koy pratiquer loolu xam nga xam-xam moo. loolu moom waaw effectivement xam dafa neex. dafa neex waaw boo boo di xam dootoo doyal. waaw parce que loo xas xam rek. leneen li ko féete kaw ngay bëgg xam waaw xam loolu li ko féete kaw dafa am sama benn xarit xam nga lu ma wax daan ma professeur yow li ma neex ci yow mooy feebar yi tëj jamono ji moom nga téye te mënoo cee am xaalis ah parce que da nga cee utul xaalis. man quoi loolu la bu la nee bu loo ci bëggee ut xam nga ko mais gëstu bi moo ci neex. cest à que il faut ñu xam ni. Mhm. santé doomu aadama. Eh, dafa amul prix na feebar wax ak yu demee noonu OGM yi. dëgg du wér. vraiment nag ñun bu ñu deful suñu recherche ci ko ñew ci suñu plante yi mhm. mais kën dootu fi wér dëgg la am na benn waay encore bu yagul ma ko si affaire xam ko man ci la gëna yëngu muy affaire internet bi ma ko man su dama arrière arriéraatoon sama temps mu wara commencer jang at à zéro damay jang médecine jang ophtalmologie effectivement mo na mo tax ma ko parce que écran yi mhm, waaw xam naa ci kanam tout nit ñi problème bëtt lañu bëbé ya, man mi damay dal mooy damay dal légui nak ma ko ko ko xamné jang affaire ophtalmologie ma ko c'est sûr mom do somé waaw maa métier de l' avenir. de l' avenir waaw. lu wér doole parce que man sama bët yi dama xoolal eh, client yi whatsapp yi may envoyé yooyu. da ngay dem damay dem ba sama bët yi day ah, diis genn dama dama mujj ne keroog dama ne dama ne sama secrétaire bi est ce que dama mujj wut portable kii. simple rek. Ah, waaw parce que yenn saa da ngay répondre benn message fekkaat. téléphone bi ordinateur ba télé ba. télé waaw. nit ñi ñett yi nga nekk li temps bi ñu ci def moo ëpp li ngay def ci la loolu nag euh, voilà. xëy na banaana bi bu fekkee am na. loo ci bëgg euh, waaw comme comme noonu rek c'est-à-dire daal comme ni ñu ko waxee woon banaana bi fruit la bu intéressant mhm. ba xamante ni yooyu ñu la wax yëpp moom da koy da koy da koy da koy da koy saafara mhm. bu ko defee nag xam naa ni mhm. ñu yemal foofu vidéo ba lay gën a gudd rek incha allah waaw incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum wasalaam kon professeur ñu ngi lay remercier ci euh, disponibilité bi ak leeral yi nga xam ne indil nga ñu ko fi ci semaine bi yëpp kon bi mooy dernière vidéo pour boucler semaine bi kon euh, gars yi ñu leen di jox rendez-vous ba semaine prochaine euh, ci beneen feebar euh, neen plante ak beneen fruit wala beneen légume incha allah rabbi jërë ngeen jëf jërëjëf